billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lazi hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allahu summa salaatu wa salaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man daa bi daawati wa sanna bi sunnati ila yawmi din mbokk yi seetaan seen uh, émission Al Irshad ci seen TV ni ñu ko baaxoo dellu saat nañu uh, chaque fois li nekk suñu xemmemteef suñu yitte mooy dalal ay kilifa ay boroomi xam-xam yoo xam ni yéen ñi seetaan di ngeen ci mën a jariñu ci li ci génne ci wàllu xam-xam wante itam connexion di nga xam mooy euh, istibaaka muy connexion seen diggante ak borom xam-xam yooyu ndax nit ki dafay dund di soxla alim muy ku am xam-xam ku koy jàppale ci waarul anwaarul mutanawia nag ngeen di soxla woo ñu leen di taxaw di leen assisté ci ay xeet yu wuute te bokkul loolu mooy li tax nag ñu dellu ci suñu asli muy suñu originalité muy alxuraanul hakim gan gi ma toogal tey léppam alxuraan la sëriñ Moustapha Dramé yàllay kese daañu waxtaan ak yéen ci ay noqaat muxtalifa dañu gis ni jamono jii dafa xaw a metti tawat yi dafa bëri lu ko sabab daañu waxtaan itam ci zikr ban importance la am daañu waxtaan ci nit ki nan lay jëfandikoo turu yàlla di ci faj ay soxla di ci toog ay buumu gàcce di ci lijjanti lu lëcc tawat ci boppam lan moo ko différence wala euh, saafara muy faj lan moo ko wutale ak ñaan wala ndax dañu koy dafa am benn bu ñuy fekk ci biir bi ci des loolu dong doy na te am na yeneen nuqaat yoo xam daañu ko développé wala ci waxtaan bi nga xam ni moom la ñuy am moom mbokk yi ànd seen émission Al Irshad kon ma jox sëñ Moustapha mu nuyoon teg mbokk yi ñu daal di sóobu ci waxtaan bi ndax bu ngeen seetee suñu diim ngeen xam ni tey am nañu gan te tomb yi ñuy laal dina am solo lool ci yéen ngeen mën ci am njëriñ bu baax Euh, sëñ Moustapha Dramé yàlla lay kese asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Euh, sëriñ Mouhamadou Mansour Diop ñu ngi leen yu baax di la ziara. di nuyu waa Sénégal di naan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñi nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna. ñi naan allahuma salli ala sayyidina muhammad nil faati lima axliq wal xaatimi lima sabaq naasiril xaqi bil xaqi wala di ila siraatika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaaril aziim qul huwa allahu ahad innallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul a'uuzu bil falaq min sharri maa xalaq min sharri gaasiqin izaa waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri haasidin izaa hasad qul a'uuzu birabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharri waasiqin allazii yuwaswisu fii suduuri naas gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ubbee alquran xul huwa falaq naas nga xam ne daanaka mën nañu mooy alquran xul huwa dafay saxal ak am ak yàlla dàq lépp luñ ko bokkaaleel falaqi ak naas yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi ne ko soo bëggee mucc ci pexeem seytaane ak ñi lay fexe di la gàllankoor dala bëri la jàng xul huwa xul falaq bi koy ñaan nag laltaayoo ko suñu njëlbeenu wax pour lépp luy teq-teq wax ba suñu lamee jadd wax lu ñu gërëmut lu bokkut ak lu ñu sos ci suñu débat ñaan yàlla yenn yàlla subhaanahu wa taala teqan seytaane ba bu ñu traversé ñu nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu nag mbooleem citoyen Sénégal yoo xam ne ñu ci réew mi ak bitim réew di dem ba États-Unis di nuyu waa États-Unis yëpp ñëw Espagne France ba Hollande ba Allemagne ba Gambie gii jegeñu mbooleem fu doomu aadama di yeewoo dañuy seetaan ñu na la jàpp ci ñaar loxo. di sukk ci ñaay bët um di toroxlu dinaa la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, Cheikh Mahamadou Moustapha Dramé yàlla kese euh, dañuy daal di jublu ci waxtaan bi euh, dañu nekk ci jamono joo xam ni tawat yi dafa bari lool. zihniyan aqliyan jasadiyan badaniyan xataa rizqiyan daanaka wërsëg sax dafa tawat yaram tawat xel tawat xalaat tawat ñu dem ba dafa mel ni nit ki li nekkoon àndandoom bi gënoon ci àndandoo muy alsexa muy wér daf ko abandonné lan moo sabab galli góosa yooyu am ci àdduna xam nga doomu adama dafa am yu ko ba tax muy nekk doomu adama boo ne doomu adama nag nit ki jëmm ji lay xool mais xamul ne même bu jëmmu amee jëmm dafa am lu koy dundal jëm li koy dundal nit koy uti waaye ñëpp dañoo fàtte lan ma war a jëmm mooy ruuw parce que néew bi tëdd ci biit margo bi ak man mii toog ak yow xamuñu différence lu ruuw moo suñu différence ruuw gi nag dafa am lu koy dundal muy nuuri ilaahiya fokk nga jox ko yellam ba ma sëkk boobaa nag ruuw gi dina orienté xel mi ak jëmm ji ci mboolem sobe mboolem musiba ak balaa ba du daj ak moom maa ngi bëgg a delloo si ni ngi ne leen il faut que ñu delloowaat ca cosaan la moo ci jëla jëlaat subhanahu wa taala parce que mooy base bi ndax amuñu fii ci àdduna doomu aadama yëpp buñ xëyoon di jàng alquran di wax astafirullah junne at mënuñu fay yàlla ci amal gi mu leen amal léegi nag comme suñuy dund 63 cent su baree bari moom li ñu saasam dundoon ñun jul bu nekk war naa refa njortu ne bëgg rombee tamit xelam dalatut kon boo bala nga fa yegg tamit xamu fitu yegg fa ndax wur da fa yeggam nit li gën a am solo mooy li nga xam ne ni mooy sa bàmmeel la nga fay jiital dafa am solo nga préparé ko loolu nag istixfaar moo ci njëkk Modou Mansour doomu aadama bu tëju istixfaar mën na ko tëji istixfaar xam nga baatu istixfaar boo ko darboo mu ngi lay jox 1947. mooy mooy mooy astaghfirullah baatu astaghfirullah moo la jox 1947 baat bi jëmmi baat bi jëmmi yàlla jéggal ma yàlla jéggal ma baat bi boo ko multiplier mu ngi lay jox 1947. boo ko jàppee ci wàllu adad mu ngi lay jox 1947 léegi nag boo bëggee janaw yàlla suñu borom subhanahu wa taala na ko jéggal ma jéggal ma li ruux gi di naan. li njëkk ci li mu war a recevoir bu xëyee ba du sat 1947 istafar la li fi doomu aadama di sooxee laa lay wax ba doo ko ñëw ci dem entreprise bu mu liggéey ñu dàq ko njël benn ga parce que yàlla bu la yàlla bu la dàqee perte nga dama bëgg diggal ni ngi leen li njëkk ci doomu lii tax fa muy liggéey mu am fa jàmm alal ji mu am mu am ci jàmm fa mu koy dugal mu am ci jàmm d'abord dafay njëkk mu nekk am jàmm ci diggante mooy yàlla gannaaw istixfaar 1947 ñëpp war nañ julli si yéen bi salaam salaam salaam dafa am benn nit yàlla bu mag salaam nabi dama la si jox benn lim ak benn sirru ki ma ko jox dafa tëdd guddi jënt yént bi salaam salaam ne ko da leen jàng salaatu ala nabi 1854 di ko julli ci man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 1854 yonent bi ne ko ñeddee batalo Joola man bi ma ko calculé 1854 la dama ne la dafa am benn nitu yàlla bu mag boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi ne ko li mu ñiddee batalo Joola 1854 lañ 1854 boobu nag bëgg naa ngeen ko jàng salaatul faati yi di ko julli ci man di làqu ci man. di ko gënt loolu nitu yàlla la. xaqan eh, ba ma ko tuddoon fii ñu bëri xam nañ ko mu ngi dëkk Saloum eh, ma teg la ci ne comme nit bu waxee istaxfaar ba noppi ba yàlla kontaan te yàlla ne inna allaha wa malaykatu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi lim nag lim bi bokk na ci lim bi gën a baax mooy huit mille huit cent cinquante quatre saatu fati nga ne ko yàlla maa ngi jég maa ngi jàng saatu xanaa nit bi mille cinquante quatre di làqu ci gannaaw yéen di sallallahu alayhi wasallam mboolem li musiba ak balaa bu ma dal nga toog naan yàlla allahumma salli ala sayyidina muhammad kon kon kon kon kon 1854 salaat ala nabi astaghfirullah itam 1947 mooy at bi nga ko war a wér xam nga istixfaar baat bi. waaw xam naa ko ci loolu la. waaw kon boo liggéey boo toogee liggéey istixfaar 1947 ba pare. teg ci saatu xanaa ne bi 1854. Mhm. saatu xanaa ne bii. Mhm. ne yàlla jox naa ko yéen bi sallam addiya ngir làqu ci moom. Mhm. waaye ku yàlla làq ci gën a yéen yow yow yow yow kan moo xam pexem làqati la yàlla. kum jël. làqale ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam kan moo xam maqaamam làqati la ndax yàlla ka li coole bari bari benn xarit la xam mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam keneen ku nekk xaritam la nga xaritoo yonent moo tax moo tax mu def la xarit seetlu la ne tey jii nii moom Mamadou Mansour boo jógoon tey ne tey bis ni tey nekk naa parti nangam di jàppale nangam joxe naa nangam kooku bu faloo bu amul sens dana la jox poste nangam ci état bi ku bëgg yàlla takkal la garaat làqal la si gannaaw nabi sallam loo nekk nekk nekk xale mu xartoo ak yow yàlla nga ko joxe nit dara ju yàlla nga ko joxe nit ci saatu xale nabi sallallahu alayhi wa sallam 1854 ci lu yàlla joxe boo waxee boo waxee istigfaar 1947 wax sala salaatu ala nabi 1854 nga xam ni li muy daanaka mooy kiiraange àdduna ci ni mu mën a ñoŋale nit ki ak dundam waaye kon yaa ngi muy dugal ci géewu kon def a zikr parce que loolu dafay laaj nag jil sa taw yi la day laaj nga toog toogaay bu yàgg. moo tax xam nga man loolu laa xam parce que nit ñi il faut ñu invité di dem ci njaq yi sulmaani yu mm-hmm. ay petaawoog. ba jëmbul laxalu lu ak xar mu ñaanu dem rek ko si mbedd màgg yu mel noonu fokk nit ñi bokk dellu ci yàlla subhanahu wa taala di ko ñaan xam lu gën a garaaw mm-hmm. istixfaar mooy buntu maa ngi seexu teraanga àdduna mm-hmm. ku ko yàlla ubbil nga am teraanga àdduna salaatu ala nabi ku ko jàng ba yàlla julli ci yow mm-hmm. ba yàlla nangu la ko neex na nit ñi nangu la koo gis nit ñi bañal ko rek sa bi la liglu mhm. Mhm. boo jógee ci saatu xalana bi dafa am boo jógee ci saatu xalana bi nga xam ne mooy mooy nuur nooru muhammadiya dafa am na ñuy wax moo ilaahi muy laa ilaha illallah muhammadu mooy yàlla kese laa ilaha illallah moo yàlla kese laa ilaha illallah dafa am lim bu ñuy wax cinq cent vingt neuf moo jàpp ifta lii mooy lan ubbeeku ngay jàng cinq cent vingt neuf tout le temps laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa laa ilaha yàlla lu muy wax fa toog dafa naan jibril alayhi salaam kaay waaw Mamadou Mansour Diop mais toog si nii ba naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah koy déglu mu na ko ah naa ko de kii laa wax de na ko xool Mikaël mu ñëw Mikaël ñëw mun ko déglu le Mamadou Mansour Diop nga toog naan laa ilaha illallah laa ilaha laa laa ilaha illallah xool leen asrafil mu ñëw mu ñëw ñoom ñett ñëpp ngi yàlla ci boo tax ñu toog ci jàngale diglu leen man sa jóg laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah xam nga xam nga xam nga foofu jibril li muy wax yàlla mi mm-hmm. kii nu def ba xam la parce que moo leen pii yàlla yi malakoot mm-hmm. jabaroot laahoot haahoot pii yooyu moom dafa nekk laa illallah lay sabale yaa suma subhana taala jibril ne yàlla kii nu def ba xam la mu ne ko ah xam na ma de waaye nag xam na lu ma waxoon noonu naa képp ku ma tudd ci mbooloo ma tudd ci mbooloo mu gën mbooloo ma tudd ku ma tudd ci téeméer nit ma tudd ci téeméer ne nit xam nga li muy wax asrafil asrafil takk leen seen dàll ngeen dugg àdduna bi mbooleem ku xiir asadu an laa na xam diw maanaam bayra li gën a gaaw ci bayra mooy nga wét di tudd yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala moo ci gën a gaaw yàlla du waxantu di ku wét tudd ma alors euh, dañu gis ni zikr dafay am connexion diggante nit ki koy def ak yàlla euh, ñu bëri nag xëy na du ñu am temps bi du ñu am jàpp na ko man def riyaada yéen ñi nga xam ni euh, géejal ngeen ci wàllu xam-xam ba noppi ci côté boobu la seen xam-xam jëm muy wàllu wéetal yàlla jëfandikoo turu yàlla di ci dog ay buumu gàcce di ci faj ay soxla di ci tabax nit di ci tabax nguur di ci jàppale ay nit di ci dimbale ay nit parce que xam-xamu lasxaar dafa xóot te dafa yaatu waaye xam nañ ni base bi mooy ismullah alors euh, ci nan kan moo war a jëfandikoo tur yàlla. mooy ki set te xam ko bala nga xam jëfandikoo tur yàlla hmm. da nga war a xam ne xarfi abajade yi hmm. ñaar fukki arab ak juróom da nga war a xam xaalam bi hmm. ci sifir yàlla téye àdduna bi ci lu ko yàlla téye mboolem doomu aadama yi ku ne ci diwaan la xam nga abajada. ñaar fukki xaraf ak juróom ñett la boo ko doon xaaj ñeenti xaaj xaj bu ne day am juróom-ñaari araf xaj bu ne day xaj bu ne ñeenti xaaj xaj bu ne day am juróom-ñaari araf xaraf bu njëkk bi xaj bu njëkk bi mooy tuddee un tëmun fasasun benn xaaj bi ñu tuddee ko ba way nun dasasun ñetteelu xaaj bi ñu tuddee ko jaskas jaskasun dasax dasaxun ñeenteelu xaaj bi la tuddee dë dax la woon raqasun dax la woon ñeenti xaaj yi dafa am bu ne am malaayka am rawaan ñu xaaj ko tuddee ko naari yu turaabi yu hawaa yu ak maa yu Maodo Mansour doomu aadama boo bëgg a fal ndombal tànk boo bëgg fal foog nga xam ñeent yi ci bokk naari yu turaabi yu hawaa yu boo ko xamut mënoo koo ñaanal yàlla mënoo sikki ismu naa laxsam parce que bu fekkee ni dafa ñëw yàlla xam nga mboolem doomu aadama yi kum mën a dox turam mu ngi si ñeenti xaaj yi mm-hmm. ah tëmun fasasun bu fekkee da ngay ñëw tudd moo Maodo Mansour Diop damay xool sa tur fan la moo xool ma ne ah moo Maodo Mansour Diop turam bi li ko sos miim la muy ngaa ngi nii kon yow ci ci ci ci ñàkk nga bokk mm-hmm. ba da nga tudd faatu faatoo ngi nii ba da tudd xëdi xëdee ngi ba da nga tudd mm-hmm. tayru tayroo ngi nii ba da tudd lu mel ni yeneen tur ay saqiro yooyu weesu juróom-ñaar daf yi boo tuddee mbay yeneen tur yu mel noonu mu ci ñaar mu ci ñaar ligne bi ñetteel bi ñeenteel ba mat demet damay xool Mansour dafa bokk naar yi wala turaab bii wala hawaa yu wala maa yu ku dëkk naar yu yàlla bind ay mbiram ci safara nga bëgg koo ñaanal ci ndox mënut ne wala ku dëkk maa yu nga bokkoo koo ñaanal ci hawaa yu muy ngelaw mënul ne xanaa xamul la na koo xam ne jàng na ba am doctorat mënut liggéey mm-hmm. mboolem mboolem lijaas da fekk bokk fi hawa yu parce que ngelaw la yàlla da ko bind ci ngelaw même bu yàlla joxee liggéey doo jëriñu liggéey parce que lépp loo liggéey dafay daal dem. mais pexe mën na ci am. pexe da ci am léegi nag pexe mi ko xam nag mooy nit koo xam ne ni wóor na ko ne diw mii raw xaanam mu nga dëkk bokk ca turu malaayika nangam. bokk ca rawaan ak nangam bokk xaw a iyu bis nangam la gane ci àdduna nangam nangam la yaayam tudd lépp mën koo xam ci biir xaw a te doo ko laaj tur ndeyma tur baayam lii ne boo ko xamut boo liggéey ismila la sam dafa am benn kilifa gu ne ma at mu jot ismila la sam dana rey fukki junne doomu aadama yu teg. jëfandikoo te xamuñu di mooy yàlla neex naqa ismulaan la sam ku ko jëfandikoo di mooy yàlla doo gudd fan ñaata jeune marabu ngay gis ñu fàttu ci seen jamono ndaw mën na koy kont man li ma ci xam ñu faatu gum ci deux mille vingt bi rek nga xam ismulaan la sam bi nga jëfandikoo tamit cosaan fan la cosaan bi fan la par exemple tey da ñëw nga ne bisimilah bisimilah rahmaani rahim nga bëgg ne am na trou ci génne woo xam ne. fanweer dafa ñett la am na ñu ko wooyee xamsatu asmaaw dafay jaadu nga xam tur bi fanweer xaraf ñett yi xaraf bu ne fu mu cosaanoo fan la da gis gaa dikk bi naa la kam sax sa sun taxa yey sin tam takka jasay sun nasal xubay sin muhammad day diisun dèjà yaa ngi gis muhammad day diisun kon tur Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi mu tëdd ci bismillah ma mi du ñëpp ko xam ci ngay demaat nag ba gis beneen turu Ismaïla Lassane bu jigéen boo xam ne ni toll na ci téeméeri xaraf ak lu teg léegi nag moo tax kuy toog di sekkal bisimilah rahmaani rahiim yi mhm. boo ko xamee ba ko xamut bu doon lu ñuy misaal la ne maanaam yàlla fa mu toog maanaam bang la mhm. ngi sekkal bisimilah rahmaani rahiim jàppal ne yaa ngi yaan bangam bi ndax est ce que xam nga ne yàlla bindu baat bu gën a rëy bisimilah rahmaani rahiim ni mu yombee ci làmmiñ nag. la réy ci yàlla suñu borom bi subhanahu wa xam nga lu baax du jafe lu baax gisoo xasamaan si ku waay génn teen seen ak ni amee njëriñ wàccoon suñ kaw fuñ jëm olof nag moo ñu neex nañu lu baax du yem waaye gis nga lu baax sëñ bi du jafe parce que suuf si ni mu amee solo xoloo sa bëggoon benn hectare boo tabax sa kër di nga génne ay millions te pourtant suuf saa ngi nii yomb na na <laughs> waaye nit ñee ko jafeel waaye ak ni ko yàlla yombalee moo tax foo fekk jaaykatu suuf doo doyal xaalis mhm. loo ko jox mu lekk ko toog mhm. parce que képp ku yëngu suuf yàlla day nattoo benn affaire doo jóg ci problème mhm. parce que suuf kenn moo koy jaamoo suma subhanahu wa taala alors dinañu ñëw ci wàllu euh, li ñu fi junj lépp di ay cëslaay yu mun naa dimbale nit ki mu faj tawat ju doon ci moom muy muy astaghfirullah salaatu ala nabi la ilaha illallah sëñ Moustapha yàlla kese daf ko daf ko faram-fàcce donc orienté na leen ci li nga xam ne mooy zikr ni mu amee solo ci adat bi nga xam ne moom ngay def li nga ciy lijjantee sa ëllëg lijjanti ji sa tey waaye faaw nga nekk insaanul xaalis faaw nga nekk insaanu naq yi faaw nga set faaw nga ragal yàlla nekk itam insaanu taq yi faaw ngay wéet nekk nit koo xam da ngay dafa ngay am zuhdu dëddu àdduna yooyu ay point la yoo xam ni bu ci tënku di nga jigeel loolu yàlla ndax daf lay permettre nga am axlaaqun xamida muy jikko ju sell balaa nga yegg foofu nag euh, dina jafe ci jamono ji ñu nekk ndax dañu nekk ci àdduna boo xam dafa xaw a xat du ñun dong ñooy dund ci àdduna ay jinne ñu ngi fi am na ay rawxaan yu fi nekk ak ñeneen ñuy dekk ñuy euh, ñuy interpréter neneen ci ñoo xam dañu dund ci kaw suuf waaye xëy na ñun loolu lañ ci mën a jàpp ndax loolu la ñu fekk ci alxuraanul hakim ñooñu nag dañu dëkkandoo ak ñun tawat yi dafa commencé bëri mooy yàlla gi bëri jinne yi nekk fi rawxaan yi nekk fi seytaan yi nekk fi sang bi euh, est-ce que ñooñu tey demuñu ba xatal ñu ñun fi ñu dëkk wala ñun ñoo lay xatal. xam nga point bi may njëkk wax mooy xam nga rab. waaw nit ñi dañoo sonal ak rab. Mm-hmm. te pourtant moo ne Maodo Mansour rab amut. rawxaan moo am jinne am malayka am ak doomu aadama ñeent ñeent yi nag ñoo bokk dëkk kër goo dem malaka yaa ngi koy bàggante kër goo dem rawaan yaa kër goo dem jinne yaa ngi koy bàggante rab nag boo xool képp ku koy faju doo wét parce que li ngay faju mu loolu amul maanaam turuwaa ngi fii mais jëmm ji ni mënu ko téye am na sax ñu dem ba ne la rab la ñuy wax jinne mais ba léegi bokkul jinne kenn du ko ku xam jinne doo ko dëkk doo ko tëkkaleeg rab. kon ku feebar ñun ko da am rab. mooy du wér dafa am lu ñuy wax rawaan mooy li ma wax léegi par exemple tey da nga ñëw nga ne man Mouhamadou Mansour laa tudd damay dellu ci alquran xooli arsi ba jadaya a gëstu ësalam mm-hmm. jéem a xool tayam mm-hmm. bu fekkee Modou Mansour Diouf dafay def par exemple nangam mm-hmm. ma bëgg koy folli damay xool rawaanam ci téye rawaan gi d'abord yeew ko bu mu dëgër doo ko téye Modou Mansour Diop bi yeew ko li ma bëgg ci moom mën ko am bu fekkee dama bëgg ñu ne Modou Mansour Diop nañ ko dàq bu ma téye rawaan gi téye sa tur ba pa noppi yow su ma la bàyyee ñu dàq la parce que il faut que dafa am nga wax ko wala nga jëf ko bu fekkee liggéey bu liggéey bu bu yomb maay laa wax de di nga wax lu ñu lay dàqee wala nga jëf lu ñu lay dàqee bu fekkee nag amoo woon ñaan dëgg moom yàlla mën na laa nattu ci feebar boo xam ne wala ndog boo xam ne yooyu du daa liggéey. fekk liggéeyu la fekk maanaam pour mu comprendre la rawaan dafa am. léegi rawaan rawaan mën naa xëñ nit jëkkër. mën na koo xëñ doom mën naa xëñ nit fanu gudd. rawaan mën naa def waaw rawaan mën naa def looy mu yàqu ko. Mamadou Diop nii mun naa nga fekk tey fii trois cent mille. balaa 18 mu mu sànni ko. waaw su jeexee mu doog a xelaat ne pourtant man waroon naa def nangam ak nangam. donc bi mu ko amee xelam du nekk ci loolu. bi mu ko amee am na yeneen projet yu ko rawaan gi tegal na ko def ko. ñàkk fayda. yu ñàkk fayda. boo ko amee maye cinquante mille cent mille du dara ci yow bu jeex nga am problème mu cinq mille léegi bu am lu amee nag boo jotee xale bi nag bu sa rawaan soxoree noonu def day ñëw rek muur sa kanam gi tegal ay projet nekk sa xel mi di ko jox jaxal li mu bëgg moom neex naq mu ngay def yow nag bu fekkee dajoo nit ku xam ra sa rawaan ya di nga dund ba dee doo am solution ci sa rawaan dem nga si junnee sëriñ saa jumantu fa parce que ñi ngay dem tenewuñ la ci seen bopp dèjà moom xamul sax rawaanam xamul bidduwam xamul fu mu bokk xamul turaab yooyu la wala maa wala yu mel noonu nga bëgg faj ni koo xam ne yéen a day indi problème mu ngi mel ni faux médecin bi jàpp barki dem waaw xam nga kooku xamul li loolu da dem nag ba kenn du gëm ne lii am na te pourtant rawxaan nit mën na téye sa rawaan sax doo ci kër xam nga góor góor boo bëgg a téye xàll rawaan ngi ngay téye boo dootu nekk ci góor ba ilaa yawmal qiyaamati te loolu ci ci ci zikr lañ koy defee. ci zikr ko ko bind xaatim. dañu toll ci jamono yenn saa yi ñu ni yenn saa yi ñu ni euh, nit moom fu mu sëy day tas. ah wala ñu ni euh, maanaam ci waa affaire affaire sëy. ñu naan dañuy liggéeyante dañu leen yàq seen sëy dañuy yàq nangam nangam. xam nga ñeenti rawan moo am. dafa gu góor gu jigéen ak gu nguunu ngaana ak rawan gu tëxët gu dof boo dee jigéen sa rawaan gi nguunu ngaana yàlla mënu lay sàkkal jëkkër ci àdduna ba ngeen defee ñaar at wala un wala deux ans jëkkër joo am ngeen si mbaa mu faatu jëkkër ju am day faatu maa ngeen divorce bu fekkee da nga di jigéen laa am rawan gu ngunu ngaana bu dee góor nga tamit am rawan gu ngunu ngaana jabar dalay jafe jabar ju am mën naa faatu wala du fa toog ñu maa da nga si fekk si ko fekkee sa rawaan ngi li ne la ci yow mu bu doole bu dee sa ngi rawaan gu jigéen la mën na laa may nga am ak ndaw ci ay doom ba pare mm-hmm. après ngeen tàqali ko te ba tey ni nga bëgganti ba ñaata nit ñoo sëy amandoo si doom ba noppi ba divorcé te ba tey ji ma waxee yow ñu ngi sax ki di gisante. walla yu dem ba duñu nangoo sax bàyyi ki ñu ki ñu divorcé mel ni ku ko tayul. moo mooy mooy li ma la wax boobaa ñoom ñaar ba léegi ñu ngi bëggante mais mënuñu sëy parce que rawxaan gi ku jigéen ki rawxaan rawxaan gu góor la. wala ku góor am ko boobaa nag dafay indi problème seen diggante seen diggante day indi problème waaye lu ñu ci mën a doon xattaa rawxaan gu jigéen wala wala gungunu ngaana mhm. dafa am saafara boo demee ci wan nañ mi isawa moom mooy solution bi wan nañ mi mooy solution mooy solution bi wàllu rawxaan mm-hmm. moo ci mën mbooleem lu way laal ci rawaan wan nañ mi la ci mën mu ngi dépendre ca na nga koy na nga koy liggéeyee ak ki liggéey ak ak la mu koy booleet mm-hmm. rawaan mën na laa def nga jàng am diplôme yëpp doo liggéey foo déposé ñu xolloo CV ba noppi waa c'est baax que sa rawaan gi moom li mu ci yow mooy nga toloo xam nga léeg-léeg rawaan nekk noonu borom. Mm-hmm. mais liggéey aussi mën na ko def liggéey jël ni tur nit ki yàq ko ba nga xam ne dootul mën a liggéey wala dootul toog fenn. Mamadou Mamadou Mamadou Mansour xam nga moo gën a defar defar nit moo gën a yomb defar nit. li ma expliqué nii yëpp ci ne lu baax ba lu baax la mën nañu ko fi mu baax. Mm-hmm. safaanoo am na. waaye dafay aju nag nga bàyyi xel ne yàlla ne ne kullu nafsin zaa'iqatul mawti wa kullu man alayhaa faanin mhm. te kat bis dana jot wa kullum atim yawmal qiyaamati fardan mboolem koo mos a dal xaatim loo yénoon ci xaatim nga yàlla dana ko laaj koo mos a def rawaan la nga ci yéen laaj mhm. noonu la amee xeetu def ne lu bon mhm. waaye li gën a wóor fagaru ba lu ñëw dal sa kaw loolu nag la nit ñi gëmatuñu toll nii bu ñu waxee fagaru wax itam shifa muy faju wax itam duwaa muy ñaan alors lan moo leen différencier lan mooy faju ak ñaan. xam nga ñaan boo ko waxee mooy yow sa nga sa responsabilité lépp jë jël jëbal nga ko subhanahu wa la parce que xam nga ne moom mooy yow signature bi lu mu suñu du bu dee faju nag dañuy dem suñ xel day daj garabu cosaan wala dem médecin faju dem médecin faju faju la pourtant xam nga ne yàlla faj waaye waaye toogoo sa ni xar yàlla dem nga ci hôpital seeti médecin bi. wala dem nga seeti médecin traditionnel bi nga dem mu jox la ay sungufoo yu mel ne reer wala médecin mu pigir la mhm. la faju la bokkut ak nag nga ñaan yàlla léegi nag bokkut ak feebar timit nag mhm. feebar boo xam ne lëf la lu mel ne rawaan la mhm. wala jinnee ko def wala xeetu dama ma def la ko kooku da ngay seeti da ngay seeti ñaankatu yàlla mu ñaanal na yàlla suma suma taala wala nga jommi ci sa bopp yow yaa fi dàq liggéey mënoo xam dara seeti ñaankatu yàlla mu ñaanal yàlla damaa gis ngeen yéen ñi jàng lasraar di di di di faj ay soxla di indi ay solution yenn saa yi ñu ne da ngeen dugg xalwa yenn saa yi ñu ni xaatim bi yenn saa yi voilà ci lay ñëw sax parce que lii sama kanam nii il faut ma wan ko mbokki téléspectateurs yi parce que lii man jaaxaluma jaaxaluma ci kaw li ñu bind ndax dañu bind bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi alil azim inna fatahna laka fathan mubinan li ma jaaxal nag mooy foofu la am nag li ci des nañu bindaat ay fatx fatx fatx ak adat boo xam ni xaw ma ko douze mille fatxan euh, douze mille fukki junni ak ñaar <laughs> kon ma ngi commencé jaaxal ndax man oma jotug bind loolu boole ci itam li ñu ko bindee xam naa ni du du daa du encre donc sëñ Moustapha euh, lii nii lan la lii xam nga dañoo jël inaa fatax na laka fatan mu bina bind ko douze mille trois cent douze bind nasru min allahi fatun qaribun bind ko douze mille trois cent douze mi cent douze mu ñetti douze mille trois cent douze ñetti douze mille trois cent douze lañ jël boole ko wuddoodu yaa wuddoodu mooy moom nga gis nii yaa wuddoodu wuddoodu lépp wuddoodu la moom it ñu ngi ko liggéey ñu ngi ko bind douze mille trois cent douze waaw douze mille trois mooy la wax bay sa biyu bay sa biyu boo gisee ñu def douze mille cent douze douze mille yi da koy def fi jaamu yàlla trois cent yi siin la ñu ngi ci yéene Cheikh na Tidiane baa gi ak yaa gi mooy douze moo lay jox fukki jawatu kamal ak naar lañ ci yéene liggéey ko douze 312 nga liggéey ko boole koog li ñuy wax course yu kabir muy ñetti cangat. course yu kabir mooy la ayatu course yu la. man damaa gis allahu laa ilaha illa huwa xayul qayum. moo lay def 312 moo lay def moo ñu koy def foofu rek ngay yem. boo ko liggéey boo ko bindee 312. Mhm. da ngay continuer ayatu course bi ba jeex gis nga ko. Mm-hmm. soxla yow eh, li asma wa ali asim gis nga ko. ba mu jeex. wala yow gis nga ko waa Alliance ba mu jeex. waaw bi ci kaw ngay def ñaata. douze mille waaw mën nañu mën nañu liggéey. waaw li mu jeexul. trois cent waaw. eggale na nga soog a eggale nag aaya ba allahu laa ilaaha illaa huwa hayyul qayyuum laa ta'xuzuhu sinnatun wa laa nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fi l-ard. nga liggéey ko jeexul nga bind ko jeexul. moom itam trois cent trois cent waaw. waaw. yoo xam ne yoo xam ne. dañoo jaay seen lislaam parce que bu yàlla dénkee xam-xam xamoo valeur foo jaay yaakaar ne état rek fi ne. Mhm. da dem ba yaakaar ne comme dundal nga dund comme xeñ jàmm nga nga nga nga ñàkk jàmm alors que demewut noonu alquran état bi imam yi mu laaj ne leen ndax ñu te jumaa yi mhm. ñoom mënuñ ko mënuñu indil Macky Sall dalil ci alquran ne ko fii la yàlla waxee woon ne bis naa ngam te leen jumaa yi te ab jullit war naay siggi ci kenn mu yàlla dem ci jumaa ja feebar dab ko mu ne yàlla maa ngi ni de virus corona bi dugg na ma ci jumaa ji bala ngaa dee nag naan noo waaw da ngay am jàmm mën a jaamu yàlla dangay ngay da ngay wér yàlla waaw ma ne ma ne bët bi set nga tiim sa yaay ci hôpital yàlla teg ko feebar muy jooy ngay jooy ba mu faatu yàlla soxluut ko soxluut soxlu la yow yaay ji la soxla parce que yow tamit jox na la rendez jàng nañu izaa jaaka almunaafiquun moo tax inna munaafiqiina fi darki asfali min moo gën a suufee ñooñu nag gis nga la gën noonu euh, ñu bëri si borom xam-xam yi moom ñu bëri si borom xam-xam yi ëllëg ñoo fay dugg ñoo ko moom li gën a garaaw moo tax wax naa ko daar yi ma leen daara ju nekk nañ jël ay xale yu mësoorugut ñu bëri lu ñuy jàng li ilaafi Quraysin 767 li mu amoon di ko sakk ni ko ndimbal yàlla xette leen si ñu xeex daar yi ñu jógee fi daar ju nekk mm-hmm. war na jël li illa fi Qurayshin seet benn xale bu mësoodugul bu amagul bàkkaar mm-hmm. ñu jox ko ba bisa ko jàngal juróom-ñaar téeméer li illa ak juróom-ñaar fukk ak sàkk ni ko ndimbal ne képp ku jógee sa kër jëm si daay tëj daara bu mu egsi bi na wax na wax yàlla na wax yàlla mu leen rañ mm-hmm. ne ko yàlla maa ngi jàng li illa fi Qurayshin man mi nga xam ne mësooduguma topp ma benn bàkkaar maa ngi ko jàng juróom-ñaar téeméer yoon juróom-ñaar fukk juróom-ñaar yoon sàkk nu ko ndimbal képp ko jógee ci këram pour tëj daara ku mën a dox bu mu yegg si mhm. ku jógee këram dañoo daara nag dégg si nag ah béy la ci biir bukki rek loolu lekk nga xam ne sa wërsëg la nit ñi mënuñu yor alquranu yàlla ci ba bis sët ñëpp daa ko wax ne alquran fi gën mhm. moom la yàlla wax xam mu daal ko gën mhm. ba noppi ñu ko caaxaane ba léegi naa fekk dañoo ci biir daara ji ba daara yi ba daara fekk yeeg waaye nag wallahu yaalam innal munafiqina la kaazibun <laughs> wallaay maa la ko wax xaj Moustapha ñu ngi ci fi ñuy jeexale def nañu une heure euh, waaye nag euh, bunt yi ñu fi ubbi ak njëriñ ñi fi nekk xam naa ni wax dëgg yàlla dina bëri ñu ñu sollicité parce que dañu nekk si jamono joo xam ne dafa lëndëm te ñaan dong ñu ci mën a génne jamono joo xam ne sobe bi dafa bëri laab dong ñu ci mën a génne jamono ju pëcc xew bi bari xëlwa dong ñu ci mën a génne te nit ki nag dafa ñëw ci àdduna ndax yàlla moo ni wax tax wabtaxi fi ma ataaka laahu daaral axira wala tansa nasibaka mina dunya kenn ñëwul ci àdduna pour sacrifier sa bopp wala nga ñàkkal sa bopp fayda ba doy di ba mel ni xob wu ngelaw di di di contrôler yàlla ci yàlla musal yàlla ñu nekk ay dëgg-dëgg jullit yoo xam dañuy représenté li tax yàlla wàccum ci kaw suuf ndax yàlla bi mu ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa ci représenté yàlla ci kaw suuf du lu doyadi du ku ñàkk fayda dafa war a am lu muy tekki loolu mooy li tax ñu daje borom xam-xam yu mel nii séq ak ñoom waxtaan te minal bidaay ilan nihaaya li ñu waxtaan lépp turu yàlla la lépp alquran la lépp màggal yàlla la lépp ñaan yàlla la lépp zikra la kon génnuñu lenn loo xam ne cadre l'islam la kon njabootu lislaam bu ñu sonnee jaaxle faw ñu génne ñi nga xam ne am nañu xam-xam ñu oriente leen jàppale leen kon suñ Moustapha ma jox la nga def sa kàddu yi mujj waaye balaay booba faw nga jox ma sa numéro téléphone. waaw numéro téléphone 77 la. 169 28 64. 169 28 64. 169 28 64. di wax ñëpp ne leen leen dellu seen xel ci yàlla. doomu boo mën a gis mu nekk milliardaire ñu naan ko milliardaire du dëgg du milliardaire kenn mooy première puissance du monde kenn la. milliardaire kenn ku nekk mooy subhanahu wa taala li lay xamal ne milliardaire amul am na milliardaire yu faatu bu yàggul juróom-ñaari mètre per cas moo leen topp ci seen buntu bàmmeel kese ana milliardaire en général ñu ëpp si nit nag yàlla da def milliardaire ba noppi pour préparer le duma la yomal xëy na doo ko xam ndax bu yàlla dërëm bu ma la jox ba nga juddoo sa ndey sa bàyyi ba keroog bi ngay dajeek man fii ci bit bàmmeel lu mu danañ ko xisaab kon yàlla bàyyi na xel fitnaan la te ëllëg yomal xiyam nag ñaar ñi ñooy mujj ñoo ñoowee mujj maanaam gara xam nga ëllëg yomal xiyam al yomal xiyam penci la Mor Mansour ma ñu tëmine fa penc la bu ñu fa teewee yàlla dafa naan ana musiciens yi gars jot taxawee na le ana ñu daan diglu sudees yi ak maturub kaay leen ni le sudees dana jot taxaw jàng yaasin ca kanamu yàlla ca kanamu yent yi yàlla ne ña daan diglu ne ñëw diglu musiciens yi nañ nañ ñëw diglu sudee si ngeen taxaw diglu sudee si ba ngeen diglu yaasin ba sudee jeex yàlla ne wala c'est bon taxaw leen yàlla de taxaw ne ana Michael Jackson mu ñëw taxaw yàlla ne ko wéyal morceau yi nga wéyoon yëpp billaahi mbooloo morceau bu Michael Jackson wéyoon dana ko wéyaat ci kanamu yàlla. ku ne na nga ne na nga nekkoon ba dee ci na ngay dekkee. loolu alxuraan la. ma la ko wax. xam nga te te te il faut nga misaal ko pour kiy dund musique xam ne musique lu xaraam la. parce que médecins yi dañu kidnappé jeunes yi jeunes yi nañ xam ne ni àdduna soxla jeune la yàlla soxla jeune kon na ñëpp bokk dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala kon ñun nuyu waa Sénégal nuyu waa àdduna mm-hmm. di wax na état bi ñu ngi leen di remercier ci seen taxawaay ci wàllu santé waaye faju médecin dayut nañu faj ñu ci médecin ubbi jumaay ni jaamu yàlla may daar yi jaamu seet ñu xam sirru sirru la lansam ñu ñaan leen yàlla ci réew mi ndax réew mi soxla na ñaan yàlla ñeenti day mën a composé réew mi am jàmm bu amul nag bu lii jàllee Mor Mansour ma déllu benn affaire am dana dana bëri maire yu daanu waaw ren maire élection maire yi ñëw barke al karim dina bëri ponkal ñu daanu billaahi wal kitaabi dina bëri ponkal ñu daanu xëy bu amut yàlla lépp la ne fàng ku ko jàmm sellal ko mu jox la résultat ëllëg yomal xiyaam sax nga téye ko man man sori yow ñaat ñaata yoon ngay gis nit di def dara nga ne kii yii li fi mu jëm nii du sori une semaine ñoo ne la la nga wax nga ne ah bettu ma de bettu ma mhm. yàlla noonu la mel ci mel ci nit ci maanaam ci nitam ñi ni ngi dellu ci yàlla mhm. ñuy gërëm waa Sénégal yëpp di gërëm waa àdduna di nuyu waa Saloum mhm. village yi maa leen di remercier fi tànk foofu la village yi daara yi remercier xamul tax village yi déggoo ñu ceeb de daara yi déggoo ñu ñaxtu ceeb de ñu ngi toog doylu yàlla yàlla ga ngeen doylu woon nag ba ñoxtu leen ceeb bay dundee mosoo di gis état yaakaaru leen kenn ku leen dimbale yàlla jooju ba léegi mu ngi fi bu leen xaar ceeb bu leen xaar diw bu leen xaar sugar subhaanahu wa taala nee na wa tawakkal alallahi wa kafa billahi wakkil leen ci yàlla ba état sax dégg naa yaa ngi jug naan nañ leen lay état gersu ñoom ñoo bàyyi xel lekk ceeb bi ak sugar si leen ko yéen fa ngeen saxoon muy yàlla subhaanahu wa taala sax leen fa jërë ngeen jëf jërëjëf Hadji ñu ngi lay sant ba Serigne Moustapha yàllay kese Serigne Moustapha Dramé kese moom la ñu dalaloon tey euh, waxtaan bi lépp yàlla la waxtaan bi lépp yàlla la wax nañu tawat yu bëri yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak euh, ndaw ñi di leen faagaagal wax nañu itam zikr ak njëriñ bi nga xam ne am na ko ak doole bi nga xam ne zikr am na ko turu yàlla lan lay tabax ci wàllu dund wax nañu tawat lu koy saafara wax nañu itam ñaan nan la mën a saafara wax nañu wàllu jinn rawxaan ak seytaan wax nañu itam ba sax euh, li ñu feeñal ci wàllu secret yu bëree bëri ci ay liggéey yoo xam ne liggéey na ko ci ayatul kursi ci wa yaawa duud ak inna fatax naa laka fatxan mubin ñu ngi koy sant bu baax ci li mu fi génne ci wàllu xam-xam yéen itam ñu ngi leen di sant bu baax ci ànd beeg seen émission Al Irchad maa ngi leen di jox dox daje aljuma bi ñu dëkk mal incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Bye.